ay ca mi ngi noonu jaar nañ leen di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni nag namoon ngeen ñu waaye yaakaar naa ni man maa leen raw loolu ndax maa ngi taxaw rond-point raw ak ginnaaw ku ñoom raw raw fay ah, ca ca mbere nag dafa ñëwaat yéen ci yoonu aar ndax man dama bàyyi aar benn yoon ndax damay dund aar yoonu aar nag fii ci xibaar 221 ñu fas yéene dalal képp koo xamante ne ni ndaanaan nga ngay yëngu ci wàllu aar moo xam ngay way moo xam ngay théâtre moo xam ngay bongo moo xam ngay sabab nee naa la ngay lépp loo xam ni aar la ngay dessiner ah dañuy ñëw seet fi fii ci yoonu ah de